yées tabaarkàlla salaamaaleykum aduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum képp ki may seetaan El Vision Média mais tey Sista Zeyna la puissance dafa ñëw ci li nga xam ne notre dimension tey dama ñëw seet ki nga xam ne mu nekk jigéen ju mën góor macha allah jigéen ji nga xam ne doxul daraay ñàkk fayda mais ñëw naa si place am euh, fekk ma ko fi waa El Vision gis ngeen tey ñi ma àndal nee naa leen tey dara du yomb avec Zeyna rek tey dara d yomb macha allah gis nga ma ànd ak sama waa groupe nee naa leen tey dara du yomb boo la yëgee Mati Fall noonu lañ koy bettee ah Mati jël suñu ndëwënal rek te tey spécial ndëwënal la te nañ ko fekk ci kaw nañ ko dóor dóor yi waaye. koy ah, mu fekkee déwén ci at mi. ñamalee ma ci tuuti ma xool. Mati Fall at mi ko fekkeel déwén ci at mi Mati Fall fekkeel déwén ci at mi xoolal Mati ki lu ma a xam-xam. macha allah nagam yëg nañ ma ànd ak sama bongomaan yi nga xam ne fu ñu dem rek daal fay def doom nee nañ ma nag mati nag mu ci biir néegam mais nañ ko yee bu fekkee day nelaw mais bu fekkee day jàkkaarloo tamit nañ ko yee rek xam ne waa El Vision ñu ngi fi taxaw aca Faty Fall daal di ko koy bettee ànd waa Elvision Média Mati nuyu naa la avant. fay la maa yaa am jàmm tey <laughs> waaw Mati kaañ toog kaañ toog. Mati comme ni nga ko waxee léegi nga nekk jigéen macha allah euh, maanaam nekk si ñetti liggéey. mu metti trop comme ni koy waxee benn liggéey sax dafa metti mais ngay engagé ñetti liggéey Mati nan dundee loolu noonu. ah am jom rek xam nga ak aussi ñi may jàppale parce que du man kese maa ci nekk des fois comme su ma waree def leneen. amna na comme sama yenn frère yi dañ may jappalé dem di ma livrer et truc donc du man kessé en fait mhm. lolou tamit na ma aider ci lu béré béré hmm motax ma mën ko gérer yépp mhm. kon la ngay wax sa mbokk morom jigéen ah xana ñu jéem tan sen seen doole parce que lepp lo am té amoko ci liggéey rek pour man du dara parce que tay li nga ñak jaruñu teg ko soo koy xool dangay ngay fier da ngay kontaan da ngay xam ne lii yow yaa ko def donc sant yàlla ñu am jom liggéey te bàyyi yaa ma gën a xam daal affaire yi ñuy def ak amul sens aussi. Mhm. Mati lan ngay tàggoog waa El Vision Médias xale yuuxul la. ah xanaa di kontaan ci surprise bi ngeen ma defal nii franchement kontaan naa trop lii yombul euh, di sant nag di gërëm bu baax nee bu may. sant sax du ma fi jóge parce que ñi nekk sama ginnaaw dañoo bari lool macha allah waaw di njëkkee nag ci sama yaay kooku aw ma fayam kooku bu dul woon moom tey dara du baax ku ko mere rek man maa tax su ma koy sant tey du ma fi jóge lépp moom la waaw di sant ñëpp sama ay clients sama frères yi sama sœurs yi franchement ñëpp a may jàppale waaw surtout nag di sant koo xam ne moom kenn la ci man ñu koy wax Moodu Fall kooku moom bu ma ko commencé woon di sant du ma fi jógee. franchement parler ci lu bëree bëree bari nag loo xam ni wax baaxul waaw. kon macha allah yéen ko dégg noo kon bëgg naa tamit ah sama waa gàngoor ngeen yuuxu rek mati daal di joxe ndéwnal bi fi daal di wàcc acca na biir. macha allah gis ngeen li nga xam ne jëlee nañ ko ci euh, jigéen ji nga xam ne jigéen ju mën euh, góor la muy mati su ma fu jigéen nag waaye El Vision Médias ki nga xam ne dañ koy wër muy kan muy kajaar kajaanooy mooy toosa noonu mais dama koy daal di jox sama xarit sama doom ndey sama naataango boobu muy awa ale mu ngi noonu taxaw si bunt bi euh, di ma xaar damay wàcc rek daa koy dékk micro bi mu daal dem seeti kajaa ak jëkkëram nuñ toogee ndax jëkkëram dafa ñu bisi yomb xaar ko foofu salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo El Vision Média ñoo leen ko digoon ñoo leen ko andi spécial ñaan ndawanal lay doon waa El Vision Média nag jot ci tabaski ren gi di seet andi seeti seen àndandoo ak seen i seen i am seen nit ñëw di leen bégal ànd ak sama bongomaan yooyu Zeyna fi nga falut nooy na nga demoon seeti Mati Fall borom yaa Fatimu tey nag nee naa la man maay xale bu sob bi fu nekk lay fële boo leen xamoon tey fi ma taxaw maa ngi géejowaay gàddaay fekk fi koo xam ne nag élément El Vision Média la waaye teg ci nag di nekk actrice El Vision Média muy Kaja yaa bari chéri Cheikh Sarr nekk fii ci appartement di seetu dama koy berte nu ne ci àddina kaj euh, Zeyna almaji bi gisee ak xaritam bongo yi daal di jolli ma daal di yéeg daal di xool kajaa bari nan lay seetoo ak monsieur Sarr nan la toppatoo monsieur Sarr ki tabaski bi bala topp ma ma ñëw jëbi gisee maa ngi lay xaar. BM maa la ko waxoon maa ko def instant yi nii dama koy defal surprise bu rëy rëy maa ngi nii taxaw ci porte bi BM xaar ma may ma tuuti rek ma ñëw. waaw maa leen ko digoon maa ko def nag ne woon naa leen dañuy berte Kaja Bari borom nooy moytoo sa noonu borom li ci ginnaaw muy koy mu nekk element fii ci Elvision Média naa la Elvision Média ñun saa su ne nii lañ koy defee famille lañu rek fu ñu neex la ñuy génn ndax dañoo juboo macha allah yàlla na saxal ànd bi Kaja nuy naa la. awa fay naa la. moo jongo wi aw man gis naa la <laughs> yaa ngi mel ni marine nii. loo gis ci bert bi. ii man damaa tiit awa hmm. dama tëddoon. ñoo fekk fi monsieur Sarr. waa gis nga day ay day caaxaan nga def ba mu baax noo dundee tabaski bi présence monsieur. ah comme ute na ak daal ni ma ko doon paree avant ak léegi ute na bu baax a baax parce que léegi nag yàlla def na ne ay femmes mariées lañu. waaye dañuy def ay toq tay baas mbaa ay robb yu bubu ba ci suuf. di taaj di sànneeku di felaale rek. Mhm. waa dëgg tollu noonu Kaja man bu ma la fekkee ma bert la nga def robb bi kon Kaja yow lan nga lakkee yàpp. non la ma lakkee nag damaa def sama voile rek comme xam nga dafa tàng. waa ma def voile rek daal di koy def tokk marinière timtaan waaw. waaw lan ngay wax waa Elvision Média ak sa fans yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ci série bi nga xamante ni jamono ji moom moom internet bi muy nooy mooy tosono xanaa di leen bégee ah, di leen nuyu di leen baalu ak te di leen baal nag naan leen xam nga euh, def dara mu neex nit ñi yombul waaw loolu di leen jéggalu bu baax a baax di leen nax ne tamit ñu ngi ñëw ak force mm-hmm. nañu xaar Mm-hmm. waaw ñoo ko déggandoo ka jaa ngi noonu léegi kan la ñuy remercier parce que fekk nañ fii monsieur Sarr. waaw man kooku rek laa am nee naa la. Mm-hmm. waaw ndax ba mu méttee rek moom kese moo ma fekk fi ma toog mm-hmm. génnee ma ci. kon kooku rek laa am ak sama yaay. waaw ñoom lay remercier ak sama waa kër di sant nag El waaw. elage moom jàpp na waaw waaw xam nga ne moom jàpp na ci Kaja jàpp na ci carrière Kaja bu baax a baax ak yow miy toog di awa ale ndax tey jii lépp lu ma mën rek mbaa ma di ko def rek ci yow la jógee waaw yow dangaa baax macha allah mu nekk Kaja bari nekk élément El waaye dañ ne nag ñaareel xaritu jëkkër jëlu Kaja dañoo jës suñu dëwënal yëngaloo waaw ma xam loolu da nga ñu jox suñu dama leen koy jox ba mu monsieur Sarr laa bëgg mu ñëw jox ma sama dëwënal non Moussa Sarr maa koy joxe. yaa <laughs> ah di la jaajëfal bu baax a baax awa Alain di nuyu sama muy Kaja Bari di nuyu sama baax jooju muy seex bi ma fi jógee nag maa ngi fii nga xam ne moo nekk di ñëw seet si ki nga xam ne muy doomu Géejawaay mu ñëw fekk ko Kër Massar kër yaayam muy kan muy Pape Thiam muy xale bi nga xam ne xale bu xew la fan yi mu daal di amoon victoire macha allah damay daal di dugg ci biir rek daal koy bett ndax nee naa man xale borom cit bi damay dugg rek daal di mbir bi ci biir nu muy mel ah Pape suñu mbër la moom te fekkee déwén la ñu wax kon aca na neex kon dëgg neexul waaw nañ leen dem I que déwén si at mi macha allah di contane bu baakha baax comme nima ma ko waxee wala ci buntu bi pap nuy na la. wa ma ngi lay fay soxna ci lan ngay wax ci surprise biñ la defal. wa li mom dafa graw ko wa foogeewu wu mako won motax instant yi nii la sama xol dafa fess dal mbette xam nga ak bis bu mu doon muy bisu tebeksi si ñëpp di ko feete ak sen famille ngeen fekk moy li doon dal daal contentement doon na xam lu neex la ci man dal waaw. Pape ñu dem euh, fii nga xam ne moom moo nekk Géejawaay fekk ñu la fii mhm. ñu ne ma yaa ngi Kër Massar sa kër yaay nga ñëw julli si mhm. waaw loolu moom la yàlla def quoi man ku ma xam-xam ne man doomu Géejawaay laa falaa juddoo falaa yoroo mais fii sama yaay moo fi dëkk mi ma sukk jur moo tax bu ma nekkee Géejawaay lépp loo xam ni dama koo jàpp ba julli ñëw dama koy bàyyi ñëw julleek sama famille su mel ni sama yaay samay rakk samay mag ñoo toog ak ñoom julli ak ñoom moo tax ngeen fekk ma fii ndax fii moom suñu kër la sama yaay moo ko moom mu doon kenn si man moo tax lépp lu ma jàpp rek moom bu ma wooyee dama koy bàyyi ñoo defal ko lu mu bëgg eh, moo tax ngeen fekk ma fii tey sama kër defal ma surprise boo xam ne xalaatuma ko woon mu doon loo xam ne contentement la ak lu neex daal waaw neena pap sess la dama sawar loolu ndax temps yee pass da nga bëre woon am ndam ñi daal di ñëw ànd ak waa elvision ñëw seet si la daal di jël si sunu ndew ne dëgg toll noonu comme ni ko awa ane waxee pap lan nga yëg ci tabaski bi démb waaw tabaski bi moom macha allah mun naa ne la tabaski bi moom mos def yëpp bi moo si dàq ndax da ngeen maa bett ak surprise ndax ñëw tabaski ak sa famille say soxna mag xam nga ku si mel amina ak samay rakk samay mag ay mëdi gay ndey ak sama yaay moo xam ne kenn la si man moom mun naa ne la lépp lu may sonn rek moom moo mu doon maire boo xam ne dama ko bëggal sama bopp mu jaral ma may jaayante di reyante ndax moom moo tax bu mu ñëwee tëbëg si jege ko tamit damay kontaan ne gis nga heure bi doon ma fekk géewaay bu yàgg mais ren dafa mel daf ma noot na ma toogal mënu koo dem si kanam loolu daal doon na mbégte boo xam ne mbégte bu neex la yéen tamit awma seen fay ndax gis naa ni ngeen di taxawoo ak ni ngeen di sonnee si jeune talent yu mel ni ñun xam nga lii mënoon leen see ñàkk bañ a fekk mais fépp foo xam ne jeune mu ngi fa rek am na avenir si lu muy def da ngeen koy lokati jëm ko liggéen di xool nu muy dundee ak famem ak nu muy doxee loolu tamit ma koy si kontaan si yéen bu baax a baax a baax di leen wax xam nga kër gi seen kër la pap seen pap la fu leen ko soxla fu dul fii sax dinaa dagg sama yiite ñëw teewal leen ndax loolu yéen ma ko won yéen ma ko ji daal mu doon loo xam ne lu neex la xam nga di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak surtout fii xam ni fii laay ngemboo bu mu amee combat fii laay tekee ngemb génn maire koñ bi di ma ñaanal di sonn seen doom yi tamit waxi nopp maa ngi leen baalo ak di leen masawu coono bu baax a baax a baax waaw di masawu coono waa géejawaay tamit ndax man doom géejawaay laa géejawaay laa am fa laa juddoo fa laa yoroo ba tey jii kon mënumaa dem sans géejawaay maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sama yaay ndey diite ma géey sama yaay mer pendo topp xam nga sama mag boo xam ni kenn la si man xam nga muy xaadim géey kooku mun naa ne bu dul woon moom damay bàyyi làmb mais moom du seetaan benn yoon daal lépp lu ma bëgg suba ba ngoon mu ngi siy nekk ma koy sant di ko ñaanal jàmm xam nga ba li mu bëgg moo ko xam si carrière am suñu borom defal ko maa ngi sant ñëpp daal sama mag yi jigéen ñi maa ngi leen di baalu ak ay ndey su koy mati géey bintu géey maam jaara lim daal fii ngay fanaan fii lay fanaan du ma matal xam nga ak sama série yi bu ñaawul bii muy Amina. dégg nga loolu ana Amina. waa gis nga moo def taybaasam bu baax bii. muy sama séeri koko xam nga bëggal ma boppam bëgg ko ak sama doom aadama bu ndaw ñëpp daal maa ngi leen sant bu baax maanaam daal boo naree wax fii ngay fanaan comme ni nga ko waxee nee na mu ngi nuyu chéri ko comme def tay baas bëgg naa lii ci jeeg tamit bëgg naa jeeg tamit def tay baasam bu baax ah, xoolal lii kontaan naa bu baax a baax saa su rek nii laa koy defee hmm, tëggal benn événement xeebu ma sax jaaykatu socc bi wala jaaykatu gerte caaf bi dama ko yëkkat teg ko ci kaw taal rek wane ko mais Pape bëgg naa nga sa chéri bi tam mu ñëw toog ni xam nga man damaa sob waaw noonu la dem mais boo déggee bi sama chéri mag la mais man dañ ko dénk xam nga sama mag mu nekk bitim réew jël ko jox ma ko na ma téye ko moo tax ma téye ko dénkaan la daal dénkaan la daal mais dénkaan boo dafa fort moo tax lépp lu ma mën rek dama koy def ndax moom quoi ndax dañ ma koo dénk xam naa bientôt après si kanam maa ngi ñaan yàlla am soxna soo xam day daaw si kër yi quoi yalla la ko yàlla may kon dama nan kon nuñu ñaané ndewnel tamit ah wa pap dafa melni dama gis sa yaay tok sama wedde wa non la demee muy kenn ci man ko xamni ni sori ci man mun naa la mënuma wax ci mom lo xamni dafa bëri barki Serigne Touba. kon pap dama lay dog rek daal di fekk sa yaay ndegam fekk na ko mu tok fi mo daal di jóg daal koy fekk ci ndegam suñu yaay boy la yaay nuy na la. fay na la. santé yalla julli ci yonatu sallallahu alayhi Wasallam. ma ngi sante sama njabot gep dikon sante mom mi ndax ginnaaw yàlla bi fi papaam jógeek léegi yam na fi ma ko war a yam na fi mu war a yam regret na amul benn problème wax dëgg yàlla mu nga géeje bay waaye macha allah laaw la cat waaw damay ñaan yàlla sama jàppale ko rek mu musal ko ci cat lu aay musal ko ci lépp lu gàllankoor doomu aadama yàlla na ko may mooy bépp doomu aadama ci kaw suuf yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw respecté na ma yëg na ma considéré na ma faale na ma waaw ca loolu rek lañu bëgg ci doom moom lañ ci wut waaw yàlla na ko yàlla jàppale bu baax a baax ci kàttan ak suñu borom ci barkeb Seydina Muhammad macha allah comme niñ ko waxee woon nee nañ nit balaa ngay xam mooy kan dama nga seeti ay doomu aadama wala nga dem seeti yaayam wala papam wala ay mbokkam ñu wax la moom mooy kan Pape Thiam nag jàkkaarloo nag yaayam wax na ma li nga xam ne moo nekk ci biir xolam mais kon gars yi nañ pelloo boog ñu wax ak yaay Pape Thiam ak Pape Thiam ñu génnee ndewneel bi <laughs> Pape Balla sama caméraman bu ñaawul bi ba tey ci spécial néewanal bi et eh, Pape Thiam Mbour kontaane nu ñu ne ci àddina Zeyna bég ci yow gannaaw nag foofu ca Kër Massar maa ngi fii Pikine fekk si fi nag ah, sama mag sama xarit nga xamante ni taalibe Serigne Babacar bu mag bi Samba Kassé mbokkum ndayum Asu kase nee naa la yow su ma defee spécial ñaan da wanal te ñëw ma fekk la fii sa place du ma gor bem damaa bëgg nga topp ma ma wax ak Samba Kassé nank foo ne awa waaw nga ne waaw gis nga fekkel déwén ci at mi fekkel déwén ci at mi fekkel déwén fekkel déwén waaw waaw waa beem beem ni ma la ko waxee léegi la nee naa la day sama mag day sama xarit su ma defee spécial ñaan dawanal te ñëw ma Pikine ziar ko day ndiru leneen baax Cheikh xalifa dafa baax bëgg awa ale ba muy moom mag sama nuy naa la. waaw mais fay naa la awa. <laughs> bett naa la de. non rek maa bett. ah rek maa bett lool te amaana. Mhm. lu la bett mën la daal. Euh, yow li ñu boole du ay caaxaan. yow Cheikh xalifa Khalifa Aboubacar Sy bu tedd bi moo ñu boole. moo ñu boole quoi te uh-huh. comme ni ma la ko waxee woon rek. Uh-huh. amaana télé bi day dem ba raw ci télé yëpp. amiin amiin amiin kooku moom dañ koy daagaan ci Cheikh xalifa Khalifa Aboubacar. ñëwoon naa fi Mbaye VIP création di cant nga ne ma awa nga fi ñëwaat ndax programme yu yaa ngi nii du jeex te El day law kon su ma la fekkaatee dama naan yàlla mu ngi ci yoon bi te yàlla tax dafa nangu ñaan mag sama nag julli gi noo ko dundee. waa julli bi sant yàlla rek. Mm-hmm. ndax ñun moom. ginnaaw bi ñu sant yàlla dañuy julli ci yenant bi rek waa di sant tamit suñ suñuy waajur suñu yaay ajaratu Ayta Ba di ko sant bu baax sam papa fee mu tëdd yàlla na yàlla yokk leeram ak suñ soxna su baax si nga xam ne daaw ñoo nekko muy Ndey Mbay yàlla na ko yàlla yërëm te xaaru ko àjjana di sant tamit sama mag bii kii mooy suñ taaw yaay waa di sant waa kuñ bi yëpp xale yi gis nga place bi nii la fay demee saa su ne mais sant nañ ko wér ndax événement bi dund nañ ko ci jàmm salaam waaw ko ci jàmm ak salaam maanaam liñ ci bëggoon yàlla defal nañu ko ci kàttanu Serigne Abdou Aziz Alamine bu tedd bi waaw sant nañ gu wér nag barke alxuraan te ibi kontaan nañ daal kontaan nañ bëgg nañ ndax li tax ñu kontaan mooy ñun ay jeunesse lañ ay xale lañ te maanaam boo nekkee ndaw nekk ci yoon maanaam rëkk-rëkk yi day bari mais ñun moom tiituñu ragal ndax dañoo bokk ci monument wu Pikine dëgg am ci ñun yaakaar ndax xale yi ñooy sama xarit ay ñoon xam nga sama chéri moo tax fees nañ fi dell yaa ma gën a xam ñooy sama ñoo ñooy sama mafia dëgg la ndax euh, Ama Baldé maa ni koon mafia bi ku ci bokkul xiir bi dalay dal mais sama mafia booy yi tamit uh-huh. tout temps ku ci bokkul tamit uh-huh. xiir bi dalay dal quoi waaw Ama Baldé loolu la wax te c'est la pikinité mu ni géej waaye mooy banlieue euh, Samba kase tey euh, yaa ngi nekk ci nekk jeune di liggéey événement ñëw li la waroon bari na jën nga xar non jënduma xar nag ren. lu tax Samba kase yow tamit nag. non li tax euh, jënduma xar mooy maanaam dama am ngant ci jënd xar. dama am ngant ci jënd xar. moo tax dañ la koy daal di beral dañ la koy daadi di loxo. waa léegi euh, nan nga dundee jullu bi ak sa en famille lan nga yëg sa xol. waaw sant yàlla rek. di sant yàlla tamit euh, ndax benn sant kenn ku ci nekk. buñ la déwee rek. ña la dee maanaam dangay ñeme. Mm-hmm. ndax tey koñ bi dañ fee nekk nekk fekk suñuy grand frère ay ñoon gas Fatim Kourma Khoudia Lam booy Boy Khadim Wade Cheikh Gueye sama rak xol mm-hmm. xam nga tamit euh, sama benn copain boo xam ne nii dama koy nuyuwaale Youssoufa Ndiaye international mm-hmm. dama koy nuyuwaale moom tamit mm-hmm. ak chéram Khadija ak papa Elaz ak Mouhamed mais ni ma ko dundee mooy sant naa yàlla daal ndax li tax ma sant yàlla mooy depuis boobu ba léegi nelawuma man ci place bi rek. waaw ci liggéey tout tànk yi di mo wétali saa su ne. Uh-huh. wa ñon asu ndjay uh-huh. wa di mo wétali saa su ne ñon Kumba sar uh-huh. sama tos bi nek ci kër gi di tankal wa koñ bi. wa xam nga lan la lay wax. Hmm? kon dundu nga événement bi. e mbokk téléspectateur yi Samba kasse dundu na événement bi place am client yi wër ko xalé yi wër ko mo tax ma ne jëbi gisé Samba kasse dañu jël ci sunu ndawanal. hey ana ñu ko bëgg. ñoo ngi nii ñu ko bëgg. ñoo ngi nii bëgg ci suba dara. ñoo ngi hey. mafia bi ku si bokkul waxal xiir bi da lay dal yow kay cagi jigi sanam bu rakki ma cër cëkin ah cër cër cër cër cër cër yow gumba deece dee taraw rakkin dee xaadim doomi garmi nga ñu soo. soo. xoolal ah, kon yees.